Ousmane Sonko problème bi mu nek nañ ko ñom ñi ci indil problème bi déclarer sa candidature a déclaré sa candidature. et pourtant nous ba ils avaient dit avons dem dialogue parce que Ousmane Sonko est enfermé et pourtant Ousmane Sonko est toujours enfermé et pourtant dem nañ dem nañ déclarer candidature dam dañ koy nax yàgg naa ko wax depuis depuis yewi askan bi ba tey damaa yàgg a wax ne Pastef soxlawul woon coalition pour mën a gagner élection présidentielle wala yeneen parce que Pastef ba mu génnee élection 2019 euh, ba tey seen prochaine euh, seen ñoom seen stratégie te li ñu ko waroon a def mooy 2024 Ousmane Sonko moo war a nekk président ñu protéger ko moom ñu fexe ba la personne de Ousmane Sonko bañ a bañ a ëpp doole l'appareil Pastef nous protéger Ousmane Sonko Nous dem ñu xam ko pour pour faire de lui le prochain président de la République mais Pastef n'a pas fait ça la ah, coalition il nga a coalition coalition La ci Pastef la tay ñom ñi di wax ni yépp autour de Pastef bëgguñu lu dul récupérer l'électorat de Pastef parce que xam nañ ne kii gagne pas euh, ku ku récupérer électorat Pastef tu gagnes les élections lool moy dëgg. ay ñom Déthié Fall ay ñom ñëpp loolu rek ñu bëgg. Ousmane Sonko la 15. Pastef Pastef ci jëmi boppam la ma ne la. Pastef ci jëmi boppam bu nekkul woon ci coalition yi wala ci ci ci yenn yi ni hmm. il tay bu ñuy dem élection ñom ñoy téy seen ñom ñoy téy le Sénégal ni parce que quoi qu'on puisse dire ñi nga xamante nous ñu ngi que askan wi yëpp wala ñi nga xamante que euh, li fi Ousmane Sonko cee bout du fil. d'accord la majeure partie des jeunes wala boog da ngay dox ba ci rond-point ba la Ousmane Sonko laa loolu la bu nga d'accord ñi ñu problème bi ñu ñi ñu leen ko coalition bi ñi ci coalition bi leen parce que Ousmane Sonko dëgg parce que Ousmane Sonko yoon bi baax bi d'accord alors